Serigne Cheikh Conté ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout traditionnel nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ci dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram listixaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la bigal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du sëriñ Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi sëriñ Cheikh Konte konte ngi noonu dimbali jaam yi dong doy waar moo daldi xew foofe nag ca Kumburutuxu nekk rekk ci région bu Kédougou ñeenti nit rekk lañ fa daal di faat ginnaaw ab attaque ba nga xam ne daan nañ ko woon def ci ab transfert d'argent benn ay groupe d'individu nag ñoom ñoo daal di ñëw daal di armé wu jël koppax ga fa nekk it wante daal di faat ñu toll ci ñeenti nit. quatre personnes nag ñoo ca daal di ñàkk seen bakkan ñu bëri it daal ci am ab gaañu gaañu loole sax nag moo nekk bilan tragique ba nga xam ne moo dal di am ginnaaw ab attaque d'armée loole sax nag daal di am foofee nag ca Kumbuturu nekk benn site d'orpaillage situé à quinze kilomètres bu village de Diakhaba nekk rek ca commune bu coto mu sukkandikoo rek ci suñu ay sources si waa TFM li nga xam ne ñoo daal di fësal bi les xibaar benn groupe d'individu ya nga xam ne ñoom nag dañoo daal di armé ay fusil ñoom nag ñoo daal di dugg ca gox boobee nag dem ci benn point de transfert d'argent ci la ñu daal di tiire ñeenti ñooñee nag ba ñu ca daal di ñàkk seen bakkan ñu daal di yóbbu koppar ga nga xamante ne si nag moo fa daal di nekk laata rek ñuy jël seen boto nag di daw. naka noonu it ci lañ daal di alerté yi nga xam ne nag ñoo di force de défense et de sécurité yi ñoom sax nag daal nañuy ñëw foofe nag daal di def li nga xamante ne si nag moo di constant wante yi xamle dinañ daal di ubbi ab enquête. mu mel ni sax nag attaque yooyu nekkul lu bees foofe ca gox boobee ndax nag bi la yoon mu nekk deuxième fois nag ñuy enregistré yooyu la attaque ca yooyu les raisons. ndax nag boobaak léegi daal nag matu sax lu toll ci fukki fan ba ca topp nag daal nay am foofe ca Kédougou ña fukki fan ak ñeent ci weeru janvier